opposition banque leen seen yox rek te toog muñ lan moo waral ñu jàpp ni fii Afrique rawatina Sénégal ku nekk opposition rek yow da nga war a nekk benn souffre-douleur mooy dañu sax soo ne opposant la ah waajal de di nga dem kaso lan moo ko waral pourquoi xanaa tubaab yi ñoo ñu gën a bëgg seen bopp tubaab nit mun a opposé subaak ngoon et cetera mu am ay règles démocratiques te kenn du toog naan kii dañ ko war a tëj kaso Sénégal boo nee opposant la rek li ñuy njëkk a xalaat ah mbaa waajal nga sa bopp ah dinañ la dóor de ah dinañ la yóbbu kaso de pourquoi opposition crime la wala lan la nañ ma wax ci ban charte réew mi lañ ne opposition crime la ba kuy opposé rek da nga war a dem kaso wala kuy opposé rek da nga war a toog ñu lay dóor suba ngoon parce que waa ji moo nguur fan lañ ko bind ci réew mi loolu nag dina fi dañ ci nii wala ci nele dina fi dañ wax naa ko léegi Macky Sall ci lañu am ci président moo ci gën a violent moo ci ëpp fitna ndax li ma taat li ma site nii amul ci benn nguur bu mu am gisaguma ko fi moom ci juróom ñetti at li lépp def na ko fi te su ma continué woon boo matul quinze minutes encore ñi ngi fi may cité loolu ngir ndax lan te li gën a garaaw nag nit ñee koy nax ay nit a taxaw naan waa ji c'est un grand stratége politique nga stratége politique mooy ñoom Mahathir mooy jox lañ la réew def nga ñaari mandat réew ma soppeeku na nit ñi seen jafe-jafe wàññeeku na réew mu tegu na ci développement loolu mooy stratégie politique waaye stratégie politique boo xam ne njuuj njaaj rek pour liquider adversaire mu am des pseudo analystes yoo xam ne soo leen gisee ci tere yi Macky est une bête politique bête way ñoo xam nañ ko tuddee nañu bàyyi nax suñu bopp ñeneen ñi gënuñu ñu ñeneen ñi mën a taxawal démocratie ñu am des règles de jeu transparent transparentes nit ñi di compétir ci ni mu gën a rafetee li tax ñu gën ñu sénégalais bu jógee fii dem dundu itali wala almaañ wala États-Unis wala feneen yàgg fa mujj mujj faa am nationalité dangay ngay gis règles yooyu nangu ko pourquoi suñu nekkee fii ñu suñu biir ñu bañ ko loolu ñàkk sa bëgg sa bopp weesuwul loolu Macky Sall doonul réew mi te gënul kenn fi ci fépp fu ñuy nattee nag ngëneel gënu fi kenn kon loolu il faut mu jeex may wax nag nii ñun duñu nitu fitna suñ doon nitu fitna keroog ci mois de mars bi xam ngeen ni kon heure bi demee na neneen ndax moom bu muy dem làqatu ci rolalam ñemeetul génn kilifa yi buñ ñu nee lii lañ leen sant defee nañ ko noonu nitu fitna du def loolu dañuy dekk dafa fekk ñu nekk ñu njëkk a mën a jàmmarloog Macky Sall ak ay injustice am ndax def na ko ñeneen ak ñeneen peut-être conditions yi dajewuloon woon pour ñooñu mën a jàmmarloog moom te loolu duñ ci teggi suñu tànk tey duñ ci teggi suñu tànk ëllëg dama ko wax mu leer nañ duñu dóor kenn kenn du ko mës a gis du ñu xas kenn du ñu yebal kenn fenn waaye dootuñu nangu ku yor ay gànnaayam di ñu dóor wax ko mu leer nañ mu des nag léegi ñaar ba ñett ci ay ay wax yu ñuy dégg ma bëgg yow askan wi laay waxal ma leeral ko léeg ñu ne waaw moom li mu wax respecté wul marabu yi respecté wul kilifa diine yi su ñu su doon ñi respecté wul kilifa diine yëpp ni man lañu ñu mel kon de léegi léegi léegi ñàkk respecté kilifa diine jeex ci réew mi waaye nag dinaa fe dinaa wax lenn tey mu leer toll nañu ci réew muy foo xam ne bu dee boo génnee taxaw ñëpp daw si boo waxee ñëpp déglu ay junni junni junni di topp la ànd ak yow yaakaar ci la ngay def man soxlaatuma soxlawuma intermédiaire sama diggante ak kilifa diine yi parce que loolu moo fi am ku nekk day jóg taxaw ne moom mi ngi wax ci turu kilifa diine yi bu ma kilifa diine soxlawee su ma woowee ma taal sa moto wuy ko bu ma yónnee ndaw ma déglu ko man bu ma ko soxlee dinaa yónnee demander audience bu ma ko mayee ma taal sa moto dem wax ak moom waaye man maay wax ci turu kilifa diine bis bu ne nga gis ko nit su buggee def dara ne dajal nañ kilifa diine yëpp wax nañoo ak ñoom bu ko defee ku ne man lii ànduma ci ñu ne dafa dafa kilifa diine yi loolu man kenn duma ci dugal de jàpp nañ ñi fi ñu toll ci réew mi keroog ba ñu tollee fi ñu toll réew mi mel ni mu mel kilifa diine yi dañoo yebal ci ñun ñu toog déggu leen ñu ñaan ñu li ñuy ñaan ñu nangu ko jàpp naa ni diggante bi noonu la war a deme muy benn ñaareel bi léeg-léeg bu dara amee comme ñoom dañoo dañoo dañoo ñeme ragal buur communication bi mooy fexe ba ne ñoom ñëpp la boole ñoom ñëpp benn lañu loolu il faut mu jeex fi ku amul courage keroog bi mbir li li am Ziguinchor amee ay nit taxaw def déclaration ñëpp gis ko ne ñun ñoo ko attaqué parce que dañu d'accord mu ñëw fii nit bu ne société civile la bokk dem ci ëllëg sa émission ne ñoom ak ñoom la ñoom ñëpp on les renvoie dos à dos loolu ñàkk màndu weesu loolu ñetteel bi léeg-léeg ñu ne ñoom ñëpp ay dañoo yor seeni milice ñoom ñëpp dañoo yor seeni nervi loolu it ci ñàkk màndu la bokk man de am naa sécurité waaye sama sécurité du ku ñuy yebal ne ko demal fekki ñële dóor leen sama sécurité pour aar ma man la weesu loolu la différence entre garde rapproché ak nervi mooy nervi da ngay recruter ay nit jox leen ay gànnaay ne leen dem leen tas mbo mbo mbootaay bële dem leen taal kër jàmbur dem leen euh, song manifestant yi loolu ñun amuñu ko ñun sécurité la ñu am ñun la àndal fu ñu dem bu loraange war a jógee fële dal suñu ko ñu ñu fexe ba fenk ko lu foofu la yem kon lii ñuy essayer nërmal xelu xelu sénégalais pour gëmloo ne ñun ñu ngi waajal am nañu armée yoon nañu lii nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi nañuy wax dëgg te yem ci ku mënul wax dëgg nag na nga maanu mu des nag lii nga xam ne initiative bi la ñu ne charte la ñu bëgg a signé may wax nii respecté naa trop ñi jël initiative bi trop sax ndax mois de février dañu ñëwoon sama kër ma dalal leen sama sëriñ al amin ak ñeneen ñi mu àndal yépp maa ngi leen di nuyu bi ñu ñëwee maa leen dalal mu fekk fa Bassirou Diomaye Faye ak maître Ciré Clédor lii bañ leen dégloo ba pare dama leen ni tànk yi ngeen di dox yéen ban garanti ngeen am ak ban gëdd ngeen am ci Macky Sall ba mu leer ni tey bu ngeen waxeek moom dina leen may nopp muy benn ndax su dee ay xalif généraux ñuy wax ak moom dégluwu leen dina ma jaaxal torop mu déglu keneen may leen ñaareel bi est-ce que bu dee leer na leen ni Macky moo nekkul ci dëgg est-ce que am ngeen sañ-sañ taxaw publiquement ne Macky Sall nekkul ci dëgg parce que loolu mooy ku bëgg a defar buñ ma ne nag non comme président la ci biir lañ ci ruq lañu koy wax déedéet parce que opinion bi dafa soxla xam opinion bi dafa soxla xam bu ngeen waxee ak moom ci suuf mu të bañ a bay ndax di ngeen génn publiquement ne ah waa ji de moom moo nekkul ci yoon muy ay laaj yu ma laajoon awma ci tontu waaye gis naa ni mu demee ñu nangu leen lool nag parce que keroog le 8 mars daanaka ñoom ak docteur Cheikh Tidiane Dièye ñoo yend suba ba ngoon jot préfet di woote tout le temps fa ngeen toll nañu def déclaration nañu woo xale ñu génn ñu dellu seen kër boobu waa ji ci rollal ba bés boobu ñu nangul leen ko kon ñooñu jox nañ leen cër waaye la may laaj mooy diggante 8 mars léegi ñoom fan la ñu nekkoon ndax bañ a sewee Macky ba mu dem toogaat teguñu ci 20 jours mu dem fii jam ñaajo tëkkuñu ñun ñëpp ne li fi amoon dootu fi am dinañ gis man may kan ñu ngi fi woon dégguma wax ji bari ci ba bi muy mujj déclaré barki démb ne moom mu nga ak tous les pouvoirs pas pour defar réew mi de mais pour song ay ay adversaire politique am ci diggante bi bañ ñuy attaqué assemblée nationale attaqué ñu ñaari yoon Casamance fan la ñu woon parce que tam sooy def médiation mbir mi da nga koy topp danga koy topp ñaareel bi charte bi lan la mën a garantir loo xam ne constitution réew mi ak loi yi gara mënu koo régler parce que violence constitution bi da koo réglementé loi yi réglementé ko ñu am une justice pour régler sax wax dëgg yàlla ñaata plainte lañu ñu déposé après des violences justice bi alewuñu ñaata plainte ñaata lañu dugal ci tiroir yi tëj ko lànk ne duñ ci wax kooku nag su dee loolu mënu mënuñu koo régler foofu nga foo ne ab charte boo xam ne amul benn force exécutoire mooy tënkul kenn foog nga ni charte boobu mën na mën na régler problème bi ñetteel bi ñun duñu nangu kuñ tëj en tout cas man du ma nangu ku ma tëj parce que signature dafa diis soo signé ba pare ki yor nguur gi moom lu ko neex mu def te kenn du ko wax dara mais yow bis boo yëngatoo ñu ne yaa signé woon bu daloon sa kaw sax nga yëngatu ñu ne yaa signé woon charte bi bu ñu wëlbatee élection yi nga jóg ne du fi amee ñu ne yaa signé woon loolu mooy danger bi nekk ci signature yooyu su dee ki ki lay signaloo amul benn benn benn jumtukaay benn euh, euh, kilifteef pour ñaar ñi muy signaloo mu mun mu mun leen tënk ci loolu ñu signé loolu mooy danger signature bi ñetteel bi nee nañu charte la ñu bëgg mais charte am na ba pare nañu waxaat wax ji buleen leen fàtte ni woote nañ fi ñaari yoon dialogue national ana dialogue national boobu keroog mois de mars ba ñuy waxtaan ak kilifa yi sëñ Bass Porokhane maa ngi koy nuyu di ko ziyaare ñëw ñu waxtaan sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wër yónni ko bi mu ñëwee ñu wax ataan dañoo déggoo ñu ne ko lépp dañ ko teg ci suuf ndigal la mu ne sëriñ bi dafa ne lépp lu ngeen jàppoon na ngeen ko tënk ci kayit jox ma moom moo koy yéet Macky waaye daf leen ñaan ngeen teg ci suuf ñu teg ci suuf daal di bind suñu mémorandum jox ko mémorandum boobu mémorandum boobu yéen na ko Macky waaw juróom-ñeenti weer wee romb na fan la mémorandum di toll parce que ci lañ ko ne woon ña ña ña boom xale yi il faut ñu jàpp leen def enquête jàpp leen juger leen tëj leen ci lañ ko ne woon ñi ci gaañu ak ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci il faut nga indemniser leen nun de dajale nañ li ñu mënoon yëpp ay millions joxe sëñ Muntaxa yëkkati na cinquante million joxe ana lu Macky Sall joxe ndàmpaay kan lañ kan lañ ko jox ci xale yi parce que yëfu soxor ak fayantu rek moom loolu la xam waa do kayit googu ñu ko joxoon ne ko ñetteelu mandat dafa war a jël engagement publique ne loolu dootu ko fi tudd defe naa fukki poñ moo ci ne woon loolu chart la fan la toll ñun signé nañ ko ba pare dem def suñu déclaration de Bignona M2D bind suñu charte bopp jël engagement à la non violence ba pare woo leen ñoom pour ñu jël même engagement bi boobu ba léegi attaque dóore saaga loolu lañ ci jël loolu lañ ci récolté lii mooy dëgg bi dañ ko wax ñetteel bi mooy toujours ni ma ko waxee ñun jàpp nañ ni fi mu toll nii la mën a régler problème mu violence mooy réew mi dafa am ay loi am justice am administration ñiy def xam nañ leen na ñooñu ñëpp def seen liggéey violence jeex fi lu ko mooy nag ku nekk dina jël matuwaayam ba saa suñ la songee nga mën a aar sa bopp te loolu yàllaa ko njëkk santaane ma daaneel nag ci poñ bi ci li jëm ci wàllu justice ndax yéen ñëpp gis ngeen ni mouvement bu mag am na barki démb waaye li xew dafa wanewaat rek ni justice amul indépendance au Sénégal may masawu nag magistrat yu bëree bari li ci ëpp nga xam ne ay góor lañu ay patriote lañu ñu jub lañu ñu gëm seen liggéey lañu waaye ñu leen di xeex di leen xoqatal ak di leen ber parce que su ñuy nommé ci yenn poste yi dañuy dem seet lu gën a nooy ak lu ñu garo gën a mën a manipuler moom la ñuy dem jëli ku ci am dignité am am personnalité ñu jàpp la sànni la fële fële ci xaj loolu mooy li fi xew lu ko indi nag mooy président de la république ak ministre de la justice waruñoo siéger ci haut conseil de la magistrature loolu xewi na fépp munoo am séparation des pouvoir ci cadre boobu te tontu bu ministre bi tontu kenn ci juge yi ko ne lii nga def du yoon am courage wax ko ko fa mu ko ko war a waxee ci kanamu président mooy dañoo soxla foofu ay magistrat euh, ay juge euh, d'expérience loolu wane na ni c'est l'exécutif qui choisit ses juges ku la ku la ëmbal nag wala ku la abal ay gët fi mu bëgg nga xool ngay xool looloo fi am kon bu ñu kenn wax indépendance la magistrature loolu amut ñaareel bi mooy ñi ñu tànn ñëpp man annoncé woon naa ko bu yàgg su ngeen demee sama post bi ma def sama page Facebook le 14 juillet laa leen ne woon Facebook article yoo xam ne day chargé Ousmane Sonko day wax lu bon ci Ousmane Sonko day accusé Ousmane Sonko tey ñu ne yow yaa war a jël dossier boobu est-ce que xel mun na nangu loolu diggante démb ak tey njëkk naa effacé waaye léegi tëj na page ba sax kooku mënul présenter garantie impartialité te looloo tax ñu tànn ko nag boobu ba léegi ñu ngi tànn de euh, d'instruction bi premier cabinet ci ñaar la woon kenn ki ñuy wax cuun moo téye sama demande de comment de levée de euh, li ñuy wax tudd affaire bi contrôle judiciaire ay weeri weer ñemewu ci tontu di mbokk géwélu Macky Sall dëkk même village bi mois de juin mu demoon teere ju Macky Sall Fouta ak kii nii ñu jël moom it di waa Ciloñ ak Diouf mii nga xam ne waa Fatick la yéen def leen le lien lépp rek pour yeggali liggéey boo xam ne ñoom xam nañu du musa